<laughs> waaw yéen si sax saa laa doon dem solo lañ ñu dem. maanaam yéen ñi ñu def. mais ça va. na nga sant alhamdulilah en tout cas merci beaucoup euh, di leen masaw di leen encouragé di ak euh, Boy waaye Boy démb laa koy doon gis moom dafa dafa demoon tëdd nelaw moom saa yi moom bi mu waaye Boy defe naa barki démb laa koy doon gis eh, masaw leen coono eh, jaajëfal suñu tur ak turu Fatou waaw sant ñi Sénégalais parce que euh, yéen a ngi def liggéey bu am solo liggéey la boo xam ne ànd naag it comme ñun ñëpp li ñuy def mais yéen a koy def ak engagement professionnalisme damay wax ni suñu diggante diggante sécurité ak fu ñuy protéger lu xaalis sañu boole vous totalement engagé dans le projet nous sommes tous des frères donc euh, il y aura des hauts et des bas mais fi jëm dafa laaj loolu may fàttali rek Euh, li ngeen di def yéen a ngi koy def professionnalisme di seede ci kanamu Sénégal yëpp luñ leen mus a jox comme règle ci ni ngeen war a fonctionner mooy musuñu leen sant ngeen attaqué kenn kenn musul gis ngeen jot def attaqué nit sant ñu leen ngeen attaqué nit nii verbalement ci wax sant ñu leen ngeen attaqué nit ci euh, jëm. leen sant mooy ngeen sécuriser suñuy personne ak suñuy convoi ak oto yi def ko moom ngeen mës a def waaye dañ leen mës a sant it ngeen réagir vigoureusement bu ma mooy ñun ñu joxe suñu bopp ay nit jóge fële yor seen i gànnaay wala yor seen i xeer wala yor seen bant ñëw di ñu dóor ko def donc lañ leen wax mooy saa su loolu amee. na ngeen réagir ci nu mu gën a dëgëre parce que loolu kenn sant ko kenn loolu la ñuy réagir ci wax Sénégalais yi ñun mosuñoo song nit duñu song nit mais duñu seetaan nit ñëw toj suñu dóor ñu gaañ ñu duñu réagir loolu moo xew keroog fële ci ciki kon ñu ngi leen di félicité ndax vous avez été très professionnel su ngeen lu loolu professionnel ba kan mën na tuuru foofu ci dëkk la kon vraiment jërë jëf mm. di wax tamit ni dinañ jël matuwaay yu gën a bëri ba lu amat it àdduna bi yëpp dina doon seede def naa désormais fu ñuy demati di ngeen yor ay caméra embarqué ba nga xam ne lu am ñu seet àdduna bi yëpp koy gisandoo à temps ñu xam ni lii jaaduwut ndax donte ñi ngi sant yàlla bu dee ñaar ñi bàyyi lañ leen yéen ñett ñi ñu def leen un mois loolu sax duñ ko bàyyi noonu ndax dinañ dugal appel ndax moo ñu doon fóotee benn fan waaye dinañu gën a jël matuwaay ba yi bu amatee seede day nekk danaan fang te kenn ko mën a wecc moo tax ñu ne ci li ngeen di def di ko defal parti bi di ma ko defal di ko defal Sénégal ñu ngi leen di gën a félicité waat leen gën a encouragé di di di apprécier bu esprit bi ngeen ciy demee ndax amul kenn ci yéen koo xam ne war na signe de faiblesse du benn yoon ndax yëpp xam nañ seen stratégie mooy lu ñuy def kase suñu moral dégg ngeen démb jàpp nañu Fatou kay tax ndax gis nañ ni mooy coordonné nemmeeku bi jàpp nañu ñu ko jàppee dina kase suñu élan te tey la ñu gën a mën a def nemmeeku tur defe naa sax boo moytu ci fan yu néew wala gannaaw suba wala di wax tamit ñu lancé waat un appel ñëpp nañu waxtaan ak seen njaboot te di leen téye ndax ñi def provocation bi. ñoom ñoo ci gën a ñàkk ndax du mën a leen ci ba ñu jëlee ci métti ba pare ñoom yéen bi ñu leen jàppee weer ñoom jàpp nañu fa ñaari weer kon lu ko fi jaroon ñi leen di nax waa am gi leen di nax di leen jox al euh, ay cinq mille leen dem leen sànni xeer wala dem leen saaga est-ce que ko yow nii ñëw tooñ jëlee nga ci lu métti ci sa yaram ba pare yaa tudd lu gën a yàgg kon lool loolu li muy firnde rek mooy tooñ du gàllaaj tooñ amul jëriñ ñun duñu mus a tooñ ñu song kenn waaye am nañu sañ-sañ en tant que citoyen dox suñu soxla ñoom bu ñuy dox seen soxla kenn du leen attaqué kenn du leen sonal waaye lan moo waral ñun suñuy dox suñu soxla ñoom ñuy jël ay nit di ko di di ko teg suñu kaw may gën a firnde fii wax ko sénégalais dégg ko di wax ñépp lañu téye seen njaboot am na loo xam ne jaru ko fi nemmeeku tuut jàmm la ñuy dox dem seeti Sénégalais yi fa ñu dëkk daje ñoom seeni biir kër waxtaan ak ñoom ci suñu gis-gis déggu seeni problème loolu kenn mënuñu koo tere kon Macky sal ak njabootam nañu yem toog te bàyyi provocation yi te di gën a woo justice nag mu gën a xool toujours kan moo tooñ ndax ñun ñi jóg dem di doxi tànki jàmm amuñu benn intérêt dem xuloo nit ñuy xeex nit kon gars yi félicitation encouragement léegi nag ñaar moomu daam soit dañuy ànd dem salle léegi wala da ngeen da ngeen di wóor une semaine une parce que saa yi moom boo gëm naa ni mënut a moom defe naa léegi nekk na cent cinquante wala naa ñii seetaan maa ngi mel ni maa ngi mel ni dafay gis ne il faut teg loolu wax lu baax quoi en tout cas félicitations et